salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi xam ne ñu suñu fii si Dakar animo point com tey nag dañu am contentement mbégte mu rëy rëy rëy ñëw fi nga xamante ni kan, moo di Thiaroy Thiaroy Gaag ci eh, eh, secteur bu ñuy eh, wax Tali Diallo ñëw plus précisément ci kër Diallo Picc Diallo Picc nag ñëpp xam nañ ko ñun temps booy dañ daan dégg Diallo Picc Diallo Picc tey jii nañu nañ gën a leer kan mooy Diallo Picc en une en une ou deux minutes nañ jéem a xam kan mooy Diallo Picc bien waxtaane aussi si espèce bi nga xam ne chaque jour ñuy romb di naaw gauche de gauche à droite et te mosuñu ko bàyyi xel ñu nekk ki nga xam ni moo di Yahya Thierno Yahya jàllo di doom ki nga xam ne moo di Diallo Picc Thierno ñu ngi lay nuyu baax a baax di di la si naaj yi nga xam ne teg nañ la fi. Euh, jërëjëf macha allah man maa ngi tudd Thierno Yaxya Diallo di doom ci Diallo picc léegi dañuy ñëw nag euh, pour xool picc yi nu mu bindoo ak nu mu mel ak ci ci waxtaan ci côté mystique ak ci yeneen euh, côté daal. tey ji mu mel ni fekk nañu fi ay ay façon picc yu bëree bare bare bëri. est-ce que mën nañu xam euh, euh, maanaam yan xeetu picc yan espèce ñoo fi ñoo fi nekk. fii actuellement am na ay euh, travailleurs am na ay pinson doré am na ay bec de corail am na ay gris du Gabon queue de vinaigre nonette yooyu yëpp espèces yooyu yëpp am na fii si volière bi. waaw tey tey tey picc dégg naa nga ne voyageur am na fii xëy na ak beneen ak beneen. naka ngeen leen di xàmmee c'est-à-dire la picc bi di mel wala nan la ban ban ban façon jikko lay am bañ ne kii ci xeet sàngam la bokk. picc bi ma yor nii. Ah. mooy travailleur. nawet buy ñëw day am deux couleurs bu góor bi mooy moo mel nii beneen bi bopp bi day am lu ñuul waaw. noonu ngeen dafa xàmme picc yëpp picc yi li ñuy bari bari fépp benn bu nekk xàmme nga ko picc li ñuy bari bari bu nekk xam naa ko te bu nekk xam naa turam waaw d'accord naka ngeen def ba mën leen a daje parce que fii ay junni junni picc ñoo fi nekk ah noonu def ba mën ko jàpp ak fan ngeen ko mën a jàppe picc yi ñu ngi jógee Fuuta yii ñu ngi jógee ci àll bi Saalum yii jógee ci benn ci yeneen dëkk dëkkuwaay maanaam maanaam dëkk dëkkaan yi waaw foofu lay jógee ci coolu ceeb yi lay jógee d'accord ngeen am ñoo leen koy jàppal ci àll bi wala yéen en personne yéen dem pour jàpp indi ko. ñun nag dañuy toog am ñu jël ñu nekk ci àll bi ñooñu bu ñu indee keesu picc yi indi ko ñu tam ñu reconté waat ko ci ñoom mettre en quarantaine trié waat ko man ko yónnee waat bitim réew. mais yii nag am na ñeneen ñoo xam ne dañuy ñëw comme ñu bëgg affaire sëriñ bi ne la nangam. Mm-hmm. ñu ñëw jënd ko ci ñun def ci affaire mystique. di ko sànni wala di ko di ko wëral sa bopp ñaar juróom ñaar yoon et cetera di doo ko sànni. d'accord waaw sama papa danaa mos wax naan luy ku yàgg si njaw di njaw euh, donc xëy na am na ay sëriñ sëriñ yuy tegtal te jëlal picc sàngam nga wërale ko lii wala libéral picc sàngam gis nañ ko ci mbëru làmb yi aussi bu buñ dikkee dañuy bàyyi ay picc ñuy naaw loolu loolu lu mën a jëriñ ci nit ki. Euh, picc yi am na picc comme bii. ñi nekk ci làmb yi dañuy yónnee dañuy yónnee ba fii ci kër gi. jënd picc yi des fois ñu loué leen cage bi ñu dem indaal faj seen soxla seen soxla faju ñu indi kees bi waaw mais la plupart mystique lañ koy doyee waaw ci mystique boobu nag macha allah yàlla yàlla def lañ ci wuyu yàlla ñu sutura daal waaw yàlla yàlla def lañ ci sutura ba lu bëri daal ci picc yi day baax ci ñun ñëpp nag waaw ñu bëri bay soo waxee dañ naan boo amee ay jafe-jafe Euh, jëndal ay picc nga libéré leen maam maam nga bàyyi leen ñu naaw daal dina tax jafe-jafe yi wàññeeku mën a mën a dem aussi est-ce loolu jàpp nga ne lu wér la. loolu loolu xam naa ni loolu wër na parce que man def naa remarque bi te man sama bopp essayé naa ko gis naa loolu moo mu ànt waaw moo tax ma wëral ko. kenn yahya est ce mën nañ am sa numéro boo xam ne xëy na nit ñi la bëgg a bëgg ci picc yi euh, mën nañ la ci jot numéro bu nekk whatsapp peut être sama numéro whatsapp boo ko jëlee waxtu woo ma la oowe wa ela boo ma yónnee audio di ma euh, di ma di ma jot mooy 77 558 45 14 loolu mooy sama numéro whatsapp waaw dina mën a jafe. waaw d'accord picc yi naka ngeen def pour dundal leen. picc yi dugub dugub lañ leen di jox hmm. am na picc yoo xam ni picc ramatu la hmm. foño lay am hmm. walla wala kii ah, ah, mboq mi sekk yu ñu ka lañ koy jox. d'accord waaw sekk yi lañ jox mboq yi. d'accord waaw. est-ce que durée de vie picc yi mën ngeen ko xam. jërëjëf bii picc mënuñu ko xam de. neexul xam de mënul xam neexul xam. Thierno Yaya ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax xam naa duñ la téye parce que appel yi moom duñ la duñ la bàyyi nga noppalu waaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la gërëm. waaw jërëjëf jërëjëf parce que instant bii daal kenn amul jot contrairement yéen kay laay remercier yéen ñu jóge ba Thiès ñëw fii di def reportage macha allah di leen ci remercier yéen tam ci xame bi ak ci reportage bu rafet mbokk yi jaa ngeen jëf xam naa prochainement nañ ñëwaat ak yéen si si beneen thème tey ñu ngi woon fii nii ci Thierno Yahya Diallo di doom ci nga xam ne Diallo picc joxe numéro téléphone am et on aimerait bien que yéen si internet yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum. Euh, Euh, c'est des portails d'information Nous ñëw contacté il est vraiment très disponible Il mais quand même quand il s'agit de donner la bonne information de parler des oiseaux il est disponible il est vraiment disponible Nous koy bu avons c'est vrai que l'ambiance, musique de baax comprendre nga yooyu yëpp baax nañ mais quand même ñu jéem a xam kan mooy Diallo Pichie euh, lan la fiy liggéey lan la fi bàyyi ñu jéem a xam un peu son histoire c'est très très très important ñu leen di invité yéen ñëpp jërë ngeen jëf